mbokk yi sunu réew mi dafa yàgg ci coona ak noteel yàq suñu cosaan ak sunu alal ñu amoon yaakaar bu ñuy jël sunu moomeel dina ànd ak yokkute ak jàmm waaye sunu njiit yi dañoo roy doxalinu ñu ñu doon noot mel ni ay buur ñàkkal ñu fayda yaatal ak ñàkk ak xeebel su dul woon sunu jom dana nu yuuxu waaye ñi ngi dégg yuuxu xale yi doon wuti koom far des ci géej gi ak ña gàddaay ñu bari danañu laaj lu tax mu dugg ci joŋante yi dégg la mënoon naa yem sama liggéey jaxasoo ak nguur gi yokk sama koom-koom waaye yàlla daf ñu wax ne inna laaha laa yuxayyiru maa bi xawmin hattaa yuxayyiru maa bi anfusihim man yàlla duma soppi mukk lu nekk ci yéen tànk jógu leen soppal ko seen bopp sama jaar-jaar ci xam-xam liggéey ak dimbalante moo waral may sàkku seen kóolute dogu ci taxawu askan wi ci diisoo ak jub ak yërmande ba kenn du leen jaay doole kenn du leen xeet chers compatriotes notre histoire a été marquée par les épreuves de la colonisation ce qui ont détruit notre culture et nos de nos valeurs. L'indépendance était censée nous libérer, mais nos dirigeants qui se sont comportés comme de véritables rois ont entraîné la promotion de l'incompétence, du complexe, de l'humiliation et de la pauvreté. Seule notre valeur cardinale, le diom, nous empêche de crier au et fort. Que le cri de la jeunesse résonne au fond de l'océan et à l'étranger. Beaucoup s'introsent sur mon implication dans ces élections. Oui, je pouvais gérer mes affaires et collaborer avec le pouvoir. Mais mon devoir moral me pousse à m'engager en politique pour servir et développer mon pays. Changer est possible, car comme le dit notre Créateur, Dieu ne change point l'état d'un peuple tant que ce dernier ne change ce qu'il y a à lui-même. Aussi, je souhaite un Sénégal réconcilié vers un développement économique et social je vous invite à rejoindre dans ànd nawle ànd liggéey yokk ba yëg ko ci daara ji tool bi ak penc mi sukkuran jazilan lakum kullu amin wa antum bi xayrin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu